bi l'observateur mi ngi ñuy nettali ci page septam jëyi jaak na mu demee li ko waral ak li mu jur benn immeuble trois étages la nekk ci cité télé ga ca xaar yàlla guddik altine jàpp talaata journal bi ne nañu ci la bâtiment bi daanu juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan yemu ca ne l'observateur mi ngi ñuy wax it yeneen fukki nit ak ñaar yu ca jëlee gaañu gaañu yu mit li daaneel bâtiment ba yéenekaay bi ne nañu xamaguñ ko li ñu xam daal mooy bâtiment ba koy dëggal ci témoignage yu mu def ci biir l'observateur moom Lamine Mané nee na màggataayu bâtiment bi moo tax ki ko moomoon dëkkoon fii génn moo ko njabootam dem dëkki almadi neewoon nag ñi woon ci bâtiment bi nañu génn ndax bâtiment bi wóoratul vox populi bind ne lu doy ca xaar yàlla juróomi nit ñoo faatu ci bâtiment bu fa daan soleil bi daanu bërki bi ca xaar yàlla moom yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal it yeneen fukki nit ak ñaar yu ca blessé source waa xëy ca jëye jooje am ca xaar yàlla ba di ñu yegg ay témoignages yu doy waar te daw yaram yu mu ci am am benn waay bu ñu naan lamin bu xamal waa source waa ne ñi ñàkk seen bakkan ci fii ne ci yëf yi te ñu xam leen Lamine nee na leen Nafisatu Badiane la Ahmed Aliou Raphaël ak benn doomu Congo bu jigéen ginnaaw lu mitti loolee xew ca xaar yàlla yàlla baax ne kon lu ni mittee naroon naa xew ca caaroy sant yàlla yëral xët mu njëkko libération benn waay bu ñu naan seefal am juróom fukki at ak benn moo tëju cib néeg ak ñaari doomam yu jigéen kenn ko am ñetti at ak kenn ko am juróomi at moom waa ji génnee paaka ne dafay rendi doom yi bu waa police gaawul kenn waxatu ko police a ñëw bi ca la waa police forcé bunt paaka patam-patamee ko nangu paaka ba sowe xale ba jotuta def li mu bëggoon nag waaye doom ji moom amee na ci ay gaañu-gaañu ndax paaka bi ñu ko tegoon ci baat mu di xibaar bopp l'observateur ak journal lise ko xëy nañu ci dellisu ci seen xëtu njëkk ci biir journal Tribune gis nañu fa xalaat bi soxna May Jaañ jàpp ne moom la ñu a def bu ñu bëggee jàppale jigéeni réew mi moom soxna May Jaañ conseillère technique ca conseil économique social doon baaxee démbu jigéen ñi Tëngéej financement bu toll ci fanweeri million non remboursable grand place ne nañu ñaawlu na ca ndajama ginnaawal gi mu jàpp ne dañu ko ginnaawal diiwaan bi li mu seetlu moom Malick mooy nee na projet bu ñuy def bu ñu ko deful Ndakaaru jëm ñaajo la ko yóbbu tëb Tëngéej mu di lool ci gis-gisam du def dara lu delloo Tëngéej ginnaaw ginnaaw loolu xel xalaat yu bari ñoo nga tey ji ci péncum ndaw réew di assemblée université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di leeral ci xët mu njëkk Sud nekk ndax convoqué nañu député ci assemblée nationale tey jii ci plénière waaye bu ñu sukkandikoo ci règlement dugal dafay annuler taxawal gi ñu bëgg taxawal ab commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire gi ñu bëgg samp tey ci assemblée nationale enquête dina kay mi ngi laaj ndax dee suufa gis ab jàmmarloo ci diggante député yi ànd ak Amadou Ba ak député yi àndut ak moom moom Amadou Ba député yu koy jàppal tànk ak député Poromakki point actu nee nañu bésub tey bii ca la xam ku ca nekk fan nga féete tey la lépp di leer li leerul public yéen a kaay nee nañu mooy waa APR ak ni ñuy doxaleeg Amadou nekk gis nañu ci ñoom ñu taxaw ne Amadou Ba la ñu àndal ba noppi wëlbati ci bëgg mu di ab commission d'enquête parlementaire Walf Quotidien nañu ca foofee moom waa APR dañu faa daanu ba xalangu ci naka journal bi mi ngi ñu koy wax ñu wax ci gayndee Sénégal